bu àggee ci almasjidul haram li ñuy yoonal ci moom ci comme ni ñu yoonalee ci mboole mu jàkk yi mooy mu jiital tànk tànk ndey jooram ne allahumma iftah li abwaaba rahmatika yàlla ubbil ma sa say bunti yërmande bu ko defee bu àggee ci kaaba ga nag mu bàyyi talbiya labbayka allahumma bi mu doon def mu mu arrêté ko bara muy tàmbali di di wër kaaba gi ya ayyuha alladhina ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ak roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci suñuy mboolee mu jaamu yàlla suñuy topp yàlla ngir mu nekk yoo xam ne yu wér la yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf koy nangu yàlla subhanahu wa taala moom moo wax ci alquran ne man yuti rasula faqad ataa allah képp ku topp yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ngi topp borom bi subhanahu wa taala ci beneen aaya mu ne mu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal jaam ñii woote woone dañoo bëgg borom bi subhaana dañu laa bëgg bëgg borom bi subhaanahu wa bu dee loolu dëggu la si ñoom kon nañ la topp bu ko defee borom bi subhaanahu wa bëgg leen jéggal leen seeni bàkkaar mbokk jullit ñi ki sàkk sek nekkul ne ñun ñëpp xam nañ li nga xamante ne moom moo nekk ci umra ak aj ci ay ngeneel yu bëree bir ak yu rëy ak payoor bu am solo boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koy fay kii umra ak ki nga xamante ne moom mooy kii aj loolu nag dafa sax ci alquran ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci loolu li borom bi subhaanahu wa taala wax na ngeen matal aj na ngeen jëfe def aj ak umra ngir borom bi subhaanahu wa taala dong mu ne yàlla faratal na ci doomu aadama yi ñu aj néeg képp koo xam ne mën na ko benn yoon ci dundam ñu jëlee ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na al umratu ila al umra kafaratun lima baynahuma nee na diggante ñaari umra mbir yi nga xamante ne moom nga def ci ay bàkkaar borom bi subhanahu wa taala daf la koy daf la koy jéggal kafaara la nee na wal hajjul mabrur laysa lahu jazaun illa al janna aj boo xam ne nag yàlla nangu na ko amul benn payoor bu dul tàbbi aljanna yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal nu jële fi ibnu abbas radiallahu anhuma mu na na ngeen toftalante diggante ak umra ngeen jëfe ko di umra di aj ndax umra ak aj dañuy dax dañuy far dañuy sori nit ki li nga xamante ne moom mooy ñàkk ak effacer ko li nga xamante ne moom mooy ay bàkkaaram comme li nga xamante ne buftu bi nga xamante ne kii nekk ci place am di defal or wala xaalis ni muy génnee salte yi nekk ci weñ yooyu ni mu koy génnee facilement mu dem yoonam nee na noonu aj ak omra ci lay borom bi subhanahu wa taala di fare li nga xamante ne moom mooy ay bàkkaar ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee kii xeex ci yoonu yàlla ak kii ak ak kii umra nee na ñooñu ñu ngi bokk ci waayu borom bi subhanahu wa taala délégation la boo xam ne ñu ngi dikkal borom bi subhanahu wa taala ay gan yàlla lañu nee na ndax daahum fa ajaabuuhu ndax daf leen woo ñu wuy si wa saaluhu fa ataahum ñu ñaan ko kon mu may leen kon ginnaaw bi nga xamante ne gaaral nañ aaya yooyu ak lenn ci xadiis yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam naa bakkan yi ci lañ bëgg lool xam nan la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon umra ak ni nga xamante ne noonu la doon ajee ñu jéem kaa jëfe mu dëppoo ak euh, li nga xamante ne moom mooy sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax lu am solo la jaabir abdillah radiallahu anhu dafa nettali ajuk yonente bi alayhi salaatu wasalaam fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam génnee këram madina ni mu génnee ba mu dem màkk ba ba muy ñëwaat ci kër gi madina lépp jaabir ibn abdullah radiallahu anhu bàyyiwu ko chalbaani rahmatullahi alayhi mu xool waxi jaabir yooyu fi ñu nekk ci téere xadiis lépp mu dajale ko def ko ci benn téere tuddee ko li nga xamante ne moom mooy adib yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak moom di ko gis loolu nag du hasard day wane ne ni mu ñëwee ci aay ak ne jullit bi saa su nekk na xool bu baax a baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nu mu jaamoo yàlla mu fexe ba jaamoo noonu borom bi subhanahu wa taala jullit bi nga xamante ne dafa bëgg armal pour pour omra li muy njëkk a def moom mooy sangu comme ni muy sangoo janaaba mu nekk loo xam ne nag sunna la bu bu dëgër ci góor ñeeg jigéen ñi même li nga xamante ne sax dañoo gis gësin wala dañoo gis seeni règle bu ko defee ñu sotteeku lu gën a rafet lu gën a neex ci li nga xamante ne moom mooy parfum yu ñu yore sol seen yére armal mu nekk ñaari mbalaan benn sër boo xam ne dañ koy woddu ak loo xam ne dañ koy teg suñu kaw yaram jigéen nag li nga xamante ne moom la doon sol aadatan moom lay sol waaye bu mu nekk loo xam ne nag lu taaru la lool wala loo xam ne dafay génne taaram naka noonu du muur kanamam du sol li nga xamante ne moom mooy ay gants bu fekkente ne dafay dugg ci ihram bu ko defee bu ñu defee loolu ba pare julli farata bu fekkente ne waxtu farata dafa jege bu dul loolu julli ñaari rakka ñaari rakka yi nga xamante yi nga xamante ne dafay tegu ci képp koo xam ne euh, jàpp na walla wala mu sangu mu ginnaaw loolu yéene yéene umra yéene ko nag ci xolam waaye am baat yoo xam ne daf koy wax làmmiñ bi génneeku mooy labbayka umra yàlla la bi subhanahu wa taala maa ngi lay wuyu si pour umra wala mu ne allahuma labbayka umra boo ko defee mu commencé daf la ñuy tuddee talbiya muy labbayka allahuma labbayk mu nekk formule boo xam ne tawxiid moo ci nekk ci tàmbale gi ba fi muy jeexee ndax lépp yaa ngi weesal borom bi subhanahu wa taala hadis boobu buxaari muslim génne nañ ko bu ko defee ku góor ki moom bu koy wax da wax ci kaw jigéen da koy wax ci baat boo xam ne dafay suufee ki ko war a dégg rek mooy ki nga xamante ne jege na ko kon talbiya boobu muy labbayk allahumma labbayk lu ñu yoonal la ci umra ci nit ki bu fekkente ne mu ngi armal ba keroog muy tàmbale li nga xamante ne moom mooy wër kaaba gi muy tawaaf bu fekkente ne àgg na màkka dañuy sopp ci kii umra mu sangu balaa muy dugg màkk ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na loolu bu àggee ci almasjidul haram li ñuy yoonal ci moom ci comme ni ñu yoonalee ci mboolemu jàkk yi mooy mu jiital tànk tànk ndey jooram ne allahumma iftah li abwaaba rahmatika yàlla ubbil ma sa say bunti yërmande bu ko defee bu àggee ci kaaba ga nag mu bàyyi talbiya labbayka allahumma bi mu doon def mu mu arrêté ko bara muy tàmbali di di wër kaaba gi bu ko defee mu jublu nag dem ci alxajarul aswad mu bu fekkente ne mën na ko mu foon ko mu laal ko ci ak ndeyjooram ba pare mu foon li nga xamante ne moom la moom la laalee bu fekkente ne loolu yomb na ci moom bu fekkente ne yombul nag bu mu jéem loolu nga xam ne loolu mën na indi lor boo xam ne dina ko lor ay mbokk jullitam te foon beeg laal bi nekkul loo xam ne farata la bu ko defee bu fekkente ne mu ngi koy laal mën na wax bismillah wallahu akbar yooyu yëpp bu jafee ci moom nag mu bàyyi loolu tàmbali li nga xamante ne moom mooy tawaafam bu ko defee buy tawaaf kaaba gi daf koy dafay ci càmmoñam lay nekk mu ñaan borom bi subhaanahu wa taala ay ñaan waaye yoonaluñ ci nit ki mu tënku rek ci ay ñaan yoo xam ne moom moo ko indil boppam wala ay ñaan yoo xam ne duñu ñu fent la ci bépp tawaaf boo xam ne mu ngi koy def waaye dafay tànn rek lu ko soob ci ñaan ci mbiru addinaam ak mbiru àllaaxiram bu àggee ci koñ bi ñuy tuddee arrukunul yamaani ci kaaba gi mën na kaa laal bu fekkente ne mën na nekk ak euh, ndeyjooram mën na bismillah wallahu akbar waaye moom nag du ko foon ndax foon boobu foon bi moom fu muy amee rek moom mooy ci li nga xamante ne moom mooy alxajarul aswad naka noonu du junju arruknul yamaani naka noonu du wax allahu akbar bu fekkente ne daf koy daf koy romb tawaaf bi nag dafay nekk juróom-ñaari wër dafay def lu ñu tuddee ar ramal ci ñett yu jëkk yi moom mooy mel ni koo xam ne dafay mel ni kuy xaw a daw gaawal tuuti ni muy doxee li nga xamante ne moom mooy ñeent yi mujj yi mu dox comme li nga xamante ne noonu lay doxee saa yuy tàmbali ci wër kaaba gi daf koy tàmbalee ci alxad alxajarul aswad foofu lay jeexee fa lay tàmbalee bu muy waatee ba foofu mu compter li nga xamante ne moom mooy benn tawaaf bu ko defee mu def lu ñu tuddee alittibaa alittibaa mooy nit ki li nga xamante ne moom mooy ne ci kawam sër bi nag ci kawam mu def ko ci suufu poqotaan nday jooram ñaari morso yi mu def ko fi nga xamante ne moom mooy ci ay mbaggam maanaam li nga xamante ne moom mooy mbagg bi di di feeñ buy tawaaf bu fekkente ne sikki sàkka na ci li muy tawaaf dafay def lu ñu tuddee albina alal yaqin albina alal yaqin mooy mu compter li nga xamante ne mu considérer li nga xamante ne moom moo gën a moom mu gën a néew leer na ko ne moom loolu loolu def na kon bu paree ci loolu mu defaat mu defaat bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy euh, mbalaan ji mu yore mu sol ko comme ni mu ko war a solee di ko defee mu jëbal fi ñuy tuddee maqaama Ibrahim bu koy bu ñëwee ba agsi maqaama Ibrahim wala bu ko jubloo ne wattaxidu min maqaama Ibrahima musalla bu fekkente ne mën na ko jàng mu jàng ko mu julli ci ginnaawam ñaari rakkaa bu fekkente ne mën na nag bu dee daa bëri nit nag fépp foo xam ne julli na ko ci biir masjidil haram euh, lu baax la ci ñaari rakka yoon nag dañ ci taamu ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bu jàngee fatiha mu jàng qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwallaahu ahad ci ñaari rakka yi rakk bu nekk rakk rakk bu njëkk bi qul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari rakk bi qul huwallaahu ahad bu paree ci loolu mu dellu ci alxajaru aswad mu laal ko bu fekkente ne mën naa nekk bu mënul nekk mu continuer ci li muy def kon mu génn jublu ci li nga xamante ne moom mooy assaayu dox diggante safa ak marwa mu jàng aaya boobu nekk ci suratul baqara inna safa wal marwata min sha'airillah ba fi aaya bi jeexee mu teg ci ne man de damay tàmbalee ni borom bi subhanahu wa taala tàmbalee ci alquran maanaam mu tàmbalee as-safa dem jëm marwa bu ko defee mu yéeg ci kaw as-safa ba muy gis kaaba gi bu fekkente ne loolu mën naa nekk bu ko defee mu jublu kaaba ci kaaba gi yëkkati ñaari loxoom sant borom bi subhanahu wa ñaan lépp loo xam ne bëgg na koo ñaan waaye bokkoon na ci ñaanu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci place boobu ne laa ilaha illa allah wallahu akbar laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama alahzaba wahdah bu ko defee muy ñaan yëkkati ay loxoom ñaan lépp loo xam ne soxla na ko ci àdduna ak àllaaxira mu baamtu ko nag ñetti yoon mu wàcc dem fi nga xamante ne moom mooy marwa ba mu àgg ci mandarga boobu ñu def ci benn poto mu nekk mandarga bu wert diggante boobu mu commencé nag di gaawal li nga xamante ne moom mooy doxinam ba mu àgg ci beneen mandarga bi bu dee jigéen nag moom du ko def dafay dox rek comme li nga xamante ne noonu lay noonu lay doxee ci wàllu dox Safa ak Marwa dem bi benn dem la dikk bi it lañ koy compter benn ñaar boo demee jógee Safa dem Marwa mooy benn jógee Marwa ñëw ak Safa moom mooy ñaar wuuteeg ni ñuy compter bi nga xamante ne moom lañ doon wër euh, kaaba gi dafay ñaan ci diggante boobu lépp loo xam ne mën na ko ci ñaan wala lépp loo xam ne aajoom la àdduna ak àllaaxira bu paree ci loolu mu watu bu dee góor la bu dee jigéen la mu wàññi leen na ci ci kawaram lu tolloog li nga xamante ne moom mooy moom mooy baaraam waaye li nga xamante ne moom mooy li dagan ci góor wat lépp wala wàññi ba li nga xamante ne moom mooy bopp bi li ci nekk ci karaw tolloo yenn yi bañ a ëpp yeneen yi bu ñu demee ba li ñu tuddee yow mu tarwiya muy juróom-ñetteelu fan ci weeru tabaski ki nga xamante ne moom moo armaloon at tamattu kooku dafay armal ci place bi nga xamante ne ci la nekk place bi nga xamante ne ci la wàccoon bu ko defee mu sanguwaat laaraat li nga xamante ne moom mooy xeeñ sol li nga xamante ne moom mooy yër ixaamam ki doon def xiraan nag ak ki doon def ifraat ñoom fekk jamono yooyu seen yëre sunni wuñ ko woon ñu ngi ko soloon ba léegi bu ko defee ñu tàmbali li nga xamante ne moom mooy aj bu ko defee ñu génn dem mina buñ fa àggee julli fa tisbaar tàkkusaan timis àggee ak fajar bépp julli boo xam ne ñeent la dañ koy julli ñaar wàññi ko julli ko ci waxtoom te duñu boole julli yi ndax loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def bu fekkente ne juróom-ñeenteelu fan bi àgg na muy yawmu arafa ba jant bi fenk kii aj nag dafay dox jóge mina dem fële ci arafa mu wàcc fi ñu naan namira bu fekkente ne mën na nekk bu munul nekk fépp foo xam ne taxaw na ko rek ci arafa euh, loolu lu ñu yoonal la bu ko defee mu julli foofu az-zuhr al asra muy tisbaar ak takkusaan ñaari rakaa ci benn noddu ak ñaari liqaam maanaam mu boole leen daf leen di boole lu ñu tuddee jamu jamu taqdim ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la defoon jant bi soo waaye ànd ak loolu lépp li mu fay def moom mooy na yittewoo ñaan borom bi subhaanahu wa taala toroxul borom bi subhaanahu wa taala di zikr di jàng alquran waaye muy ñaan ci soxlaam adduna ak ak alaxira yëkkati ay loxoom jublu fi nga xamante ne moom mooy moom mooy penku ñu xam ne nag ci jamono yooyu ñaan bi gën mooy ñaan bi yonente bi alayhi salatu salaam jàngale foofu ci ñu tuddee duwaaw yow mi arafa comme nu mu saxee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu jant bi soowee mu gaawantu génn arafa dem musdalifa ànd ak dal ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñu mbokk jullitam mu bëree ci li nga xamante ne moom mooy talbiya labbayk allahumma labbayk mu jullee musdalifa timis ak ak gee timis mu julli ko ñett gee mu julli ko ñaar boole julli yi ci benn noddu ak li nga xamante ne moom mooy ñaari ñaari liqaam ba mu fanaan foofu ba fajar ba fajar jot bu fajar jotee mu dégg fi ñu naan almasharul haram almasharul haram dafa nekkoon benn montagne waaye jamono jii dañ kaa toj dafa jàkk bu dee mën na àgg foofu mu àgg foofu ñaan borom bi subhanahu wa taala yëkkati ay loxoom bu dee mënul àgg foofu ci biir musdalifa fu mu fa euh, lu baax la bu jant bi demee ba fenk mu dellu mun a nag di ànd ak di talbiya labbayk allahumma labbayk bu fekkente ne jigéen ñi la wala ñoo xam ne dañoo néew doole ñoom may nañ leen ci guddi musdalifa musdalifa ñu bañ a fanaan foofu teel a génne foofu dem fi nga xamante ne moom mooy Mina bu dul loolu ñeneen ñi moom foofu foofu la ñuy foofu la fanaan bu ko defee bu fay jógee mu tàmbalee for lu ñu tuddee jamra xeer yi sànni li ñu tuddee jam jamratul aqaba mu foree ko Muzdalifa wala ci yoon bi wala mu foree ko sax Mina mu dem sànni li nga xamante ne moom mooy euh, jamra boobu muy al aqabatul ku jamratul aqabatul kubra nga xam ne moom mooy jamra bi gën a jege bi gën a jege Makka mu sànni fa juróom juróom-ñaari xeer euh, yëkkati ay loxoom ñaan borom bi subhanahu wa taala bu paree ci loolu mooy mu ngi ci fukkeelu fan bi bu ko defee ci lay rendi li nga xamante ne moom mooy gàttam bu fekkente ne ki doon def tamattu wala ki doon def xiraan bu ko defee mu mu watu wala mu wàññi waaye wat bi mooy li nga xamante ne moom mooy lu gën comme ni ko waxee woon sànq bu ko jigéen moom dafay dafay wàññi. bu defee loolu am na lu ñu tuddee at taxallul awwal am na yenn mbir yoo xam ne lu araamoon la ci moom ci biir at bi daggan na ci moom mën naa def lépp. ba mu des li nga xamante ne moom mooy ànd ak soxnaam ginaaw loolu mu dem ci màkka ngir waraat kaaba gi lu ñu tuddee tawaaful ifaada loolu nag ponk la ci ci ponk aj yi aj bi du mot mukk lu dul tawaaf boobu dañ kaa def kon dafay tawaaf comme li nga xamante ne noonu la tawaafoon jamono di nga xamante ne mu ngi umra waaye ar ramal boobu ñu waxoon doxin bu gaaw boobu wala génne ay mbaggam jamono yooyu du ko def ginnaaw gi mu julli ñaar rakka ci ginnaaw euh, maqaam Ibrahim ci ginnaaw tawaaf boobu <coughs> bu dee dafa doon def tamattu dafay dox diggante safa ak marwa ndax dox bi mu njëkkoon def loolu dox la woon pour omra bi li muy def fii dox la pour at bi bu dee ki nga xamante ne moom mooy def alqiran wala ki def al ifraat nga xam ne dafay aj dong lay def ñoom benn saa yu rek lañuy ñuy la ñuy def buñ ko defoon ci ci li nga xamante ne moom mooy omra bi dañ ko def ci ci li nga xamante ne mooy at boobu. boo defee bu defee looloo pare lépp léegi dagal na ci moom mën naa ànd ak ki nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy soxnaam bu fekkente ne nag mu ngi def jëf yii. mu def ko par ordre comme ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa woon bu fekkente ne nag am na ñu mu mu jël yenn yi tamit borom xam-xam li ñuy wax mooy loolu dara nekku ci bu loolu weesoo am na yeneen jëf yi des mais li ci ëpp solo moom mooy des ñaari fan ci lu ñu tudde ayaamu tashriq nekk na di jaamu borom bi subhanahu di dikkar di jàng alquran ci ñaareelu fan bi bu fekkente ne timis jotu ko foofu mën naa génn dellu dellu màcc bu dee timis fekk na ko foofu dafay julli timis faanaat foofu mu amaat fa yeneen ñetti fan bu ko defee bu paree mu dellu fi nga xamante ne moom mooy moom mooy màcc bu paree yooyu yëpp nag ba nit bi war a jot ñu bàyyi xel njàngale yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki nga xamante ne mu ngi ñibbi nda li muy mujjee def moom mooy def tawaaf dellu fi nga xamante ne moom mooy moom mooy dëkkam ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jolli ñu tawfiq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 قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون